dañu amone benn mbébét mbébét bi moy tay lepp lu nga xamné xalé soxla nako euh te am wéylaago ñu jox ko ko te ñu bañ cee am-am bi bañ cee seet mën-mën bi li ñu bëggoon moy ak kumu mu mënti doon so soxla ñu fajj sa doom topato ko te mu am wéylaago mu mën ko am ci ñun donc lolu moy euh, mbébét bi tax ñu am tay Enfant Soleil créer benn centre boo xam ne euh, dinañu permettre xalé yi nga xamné Euh, dañ ko am ñu topato len ak docteur yi ci école bi jappalé len ñu am ben liggéey bu nga xamné ëlëk dinañ mëna jariño jappalé sen ay waju maison jaune euh, mi ngi malika euh mom le motax tay mu mo waral tay ñun ñëpp ñu taxaw fii euh, di ci sante yalla bu baax man ak sama rakk kuddi mi nga xamné moy président enfant soleil france euh luñu bëgg tay moy malika bi nek rek Euh, benn ci fukk ak ñeent yi nga xam ne région Sénégal boo ne bëgg nañ fa am maison jaune donc ñuy ñaax état du Sénégal bi nga xam ne jàppale ñu jàpp mi ñuy jàppale ñu koy jaajëfal tamit ah euh, mu gën ñu jàppale ndax euh, yeneen xale yu nekk ci région yi soxla nañ ko. xale bu am handicap donc waylaago

mais lol nak dafa soxla vraiment ñu am ay bailleurs ñu am ay ay ay ay entreprise ñu am ay ay euh, fondation yo xamantene ni dañuy ñëw aussi accompagner ñu pour ñu mëna fay médecins yi nga xamantene ak euh, professionnels de santé yi nga xamantene ñom ñoy ñëw di fajj xalé yi mais en tout cas inshallah objectif bi ñu am moy que ne bép xalé bu intégré enfant soleil tey jii famille bi du am problème pour ñëw euh, pour problème mu fay voilà donc problème mu fay bi duñ ko duñ ko am gratuitement lañ koy def mais gratuitement on dit que rien n'est gratuit dans la vie donc forcément soxla nañu bailleurs si soxla nañu vraiment la population sénégalaise nous aussi ci suñu ginnaw di nous accompagner que ce soit les entreprises que ce soit les entrepreneurs que ce soit les auto-entrepreneurs que mu nekk particuliers yi nga xamantene yalla may nañ len doole ñu am xolu ñeu participer ci social té social bi aussi dañ né dañuy def social mais d'une autre façon social metina kuy def kuy def social da ngay dëkk ci ñaan mais aussi euh amna ño xamantene vraiment jox na leen xéewal nanu ñëw jàpp ci combat bi parce que ñun lool moom mooy suñu objectif tey jii nii aujourd'hui loolu moom mooy suñu objectif. dañ leen war a jàppale parce que kuy dimbale ñëpp euh, yaa dafa am xale yu bëri yoo xam ne amuñu ndimbal parce que am na xale yu bëri dañu feebar ba pare euh, ñu ngi ci biir kër yi kenn xamu leen seen waajur yi dañ leen nekk ak ñoom sonn ci bu bu baax a baax kon su fekkee ne ñoom dañ def association bi pour ñu mën a dimbal xale yi pour ñun yaay yëpp ñu jàpp ci maam yi sax laay wax maam yi yëpp ak yëpp ñu jàpp ci. kon man su ñëwee ci man dama ciy kontaan en tout cas man lu ma ci mun a def personnellement dinaa ko def pour jàppale leen et ñi ma xam aussi ku ma xam aussi dinaa wax ko nga jàppale leen man xaw ma leen woon suma doom moo leen xam euh, Sira moo leen indi ci man présenté ma leen euh, def ak ñoom projet bi ba mu taxaw vraiment kon vraiment dama koy sant aussi ci loolu ndax le fait que moom jël initiative def lii moom ini moom moo ko moom moo ko décidé kon euh, vraiment bonne continuation et wax leen ko on